salaamualeykum mbokk yi ñu leen di nuyu du ñaan yàlla yokk seen jàmm di leen ñaanal ngeen dund kenn ku ci nekk lu ëpp a téeméer at ak ñaar fukk ak ñaar yàlla moom moo am ay pexe yàlla moom moo xam ni muy def waaye bu ñu ci gàggale loolu te am jàmm rek choléra bi daal di génnaat réew mi demaat toxu dem nëbbatu foo xamante ne kenn du to gis bay laa yow mi diini loolu mooy li ñu arrangé réew mi yàlla dolliwaat fi jàmm parce que soxla nañ ko jàmm ju matale matale matale mag ñi ñoo wax ne lu dul jàmm jàmmaa ko gën comme ñun xool nañ loolu ba gis ne dëgg la nu koy ñaan sunu borom bi nga xamante ne borom teraanga la dara teewu ko te borom ndimbal la mu dimbalu si loolu barka Muhammad mi nga xamante ne mooy sunu patron kenn ku nekk bëgg xaritoog moom ngoon yaa rasulullaay jàppale nu si su sa patron sunu patron pour que gars yi am jàmm nekk waaw parce que xam nga borom ñaari tur yi ngeen di wax man wax naa ba tàyyi ne contre naa ñu leen di utal ay pexe tur pour que ëllëg muy doon naan suturaak dañuy oddo wax ji ay wax kenn du ko oddo wax dañ koy sànni si ngelaw li ñëpp ne ko for jël. jariñoo amul ab seef buñ koy odd amul mbàjja amul tuus góor jigéen lañ ay góor jigéen góor jigéen la bu kenn wax ay waxu ñaari tur soxna si loolu boo ko waxee sax est-ce que doo am bàkkaar sax hmm. est-ce que doo am bàkkaar boo waxee ñaari tur ñaari tur lan góor jigéen la mu jeex góor jigéen ñi comme niñ ko waxee chaque année ñu ngi ñëw di di fexe nu muy gën yokkoo di am ay doole di ut ay doole mm-hmm. ay doole yëpp waxoon naa ne ay dóor a koy réglé kenn du ko réglé nag gis nga nekk fii naan wuy da ngay civilisé civilisé lu ab dof ab dofa faj nga tegeen nga tegeen faj ñun ay jullit lañu mm-hmm. sunu religion bi jekk bi bu bi waxul ne nanu nekk ay góor jigéen waxuñu lu ñaaw nag waaye nag dafa doon loo xamante ne niñ ko gisee rek noonu lañ ko waxtaanee mu doon loo xamante ne ku nekk ñu ngi la siy tuumal ku nekkaa ngi kii lenn rek la contre ni ki su nekkul góor jigéen buñ ko ko tuddee parce que kenn buggul ko ko wax sa sa rak kenn bëggul ko wax sa doom ndigam nekk ko boo ko nekkee nag nañ nekk taa problème bi taaf sibbee mu xam ne ab góor jigéen la voilà waaye comme ni ma gisee sénégalais yi defee ko bii passé ak sunu doom jooju nga xamante ne euh, liggéeyu ko tax a jóg man d'accorduma nañ ko xaar ba gis ko mu def def góor jigéen ah ma ne su ma doon moom du ma ko retiré parce ñuy wax xamuñ li wax nit ki nag boo toogee ba naam ustaas nga ak Sambata Ndiaye parti par la xaar ba xam yàlla si boppam daf la dénk xam-xam ba ñu ne la ustaas nga ñu jox la sa dayoo yow fexeel ba keneen ñu dox ko dayoom loo fekkee defaree ko xam nga la mooy responsable ki nga xamante dafay jël ay responsabilité am ma a régler problème man d'accord ma pour ñu ñëw ah. parce que nit ki du c'est pas nga rek yaa ñu moom. wala sëriñ rek yaa ñu moom non kenn moomuñu ginnaaw yaay kenn nanuñu ñun gis nga fi may gis ni man Jaraaf may dëgg mooy samay dëgg c'est pas normal yow nga ne oustaz nga nga ni da nga wax loo xamante ne xamuloo si dara dama ne su ma moom booy bi du ma ko du ma bi pour jàngal Sénégalais yi c'est pas normal lii ñu def xam nga la mooy que nanu leer yàlla na xëy bés ñu ne diw moo wax ne damay jàppale góor jigéen ñi mais tànk yaa ngi naan jàppale loo góor jigéen ñi ak loo mën a def nañoo taxaw seetaan rek parce que ay couleur kenn du nit ay couleur yow ma ne eh fii bu tawee sax bu ndox mi bare tuuti da nga gisaat couleur boobu muy tepp-teppal si ndox mi waaw bu couleur lañ wax bu couleur problème bi jëf la ñoom kenn wax naa ko fii bés kenn mësu leen gis ñuy sol ay ndokat di dox si réew mi mais dañuy jël ab chemise mel ni que chemise dafa daanu sa baat ba dafa daanu sax ginnaaw ñuy lappar lappare xew cexi loxo xewi cexi baat comme dañuy cexi baat ay mbëkk moo rek réglé seen baat taxaw benn place ok am na loo xamante ne man d'accorduma nit ki soo ko laataa waxal dara rek na la wér xam nga lu tax loolu Euh, mais mais ku nekk seet ka seet ka bu doon yow day metti man responsable la damay dégg sax ñu naan non jaraaf nangam fekkat romb ma foofu sax dafa may metti am na yoo xamante ne rek du ma metti parce que damay xool kii ko wax ma xam ne moom noonu la toll ku nekk dégg na lu ne si jaraaf yu dama lay wax ah, pour mu leer y a des gens yoo xamante ne boo leen waxoon léegi ñu ne non Jaraaf dafay def lii kii day def lii président président ban man dinaa fekkaat président ma di ko yëkkatiwu ma ko pour euh, man it li ma yàlla may sax yàlla comprendre ne kii kat def na lu mu war a def nga naan man maa ko fa dara waxuma ko dara ban may fenal toujours ci état bi ragaluma leen dëkk ñoom waaye li ñuy fen fen fen fen lépp dama bëgg yàlla dégeleel ma ko pour xam nga pour ma mën a dugg àjjana du dama leen mere de parce que ñoom lay def vie pour dem <laughs> dem àjjana mais toog ne nit kii góor jigéen la dawar a fekk nga xam ne kii ab góor jigéen la am na solo ci pàcc boobu bu ñu euh, génnee ci wàllu borom ñaari tur yi dañuy duggaat yow euh, ci beneen problème boo xamante ne nii yaakaar naa ni euh, ONG Jamra ak kuréel gi nga xamante ne moom moo di mbañ gàcce wax nañ ko rek suma juumul démb te mooy que rek Ngor fële ca Ngor dañoo war a accueillir benn loge machonique boo xamante ni dañ fa war a def seen benn réunion tey jii nii loolu buñ ko xibaaree naka la lay def lan mooy sa analyse. loo loo mooy lan franc-maçon damay leeru de baal maa xam parce que man CM2 CM2 laa yem mais euh, dama bëgg toujours lu may dugg mu leer pour man loo yooyu suñ doon nëbbatu ba xëy tey su yoon seen yoon mooy ngor c'est parce que gis nañ ni ñun ñu ngi topp di waxantu wax yu góor jigéen nag waxu ñàkk fayda wéewu dafay jaadu un jour ñu seet ay pexe pexe yi mooy dóoree gis nga nit bu dofee waaye ab dof ab dafa koy faj ngàtta geen bii nga juddoo danga fekk ñu ne fii si réew mi ngàtta geen ngàtta geen moo koy fay atte bor fay mag ñi dañu bàyyi diine ñuy dewal ak diine ba mu ëgsi ñun nit ñi yebbu ñu woon suñuy maam yebbu ñu suñuy baay léegi ñun lañ bëgg a yeb mais ñun dañ ut pexe xam nga pexe mooy la kaay ma wala moment bii gars di di di di di agressé xa kërëb kërëb yi xa dugal fii génnal fii waxuma ne wakaam du am du am du am agresseur déedéet parce que waa wakaam sax mën na jur agresseur ah mhm. mais waaye boo ko fi defee yow topp la mhm. man day bés wax nañ fi nii ne agresseurs yi ñu ngay laal fële sa suuf montagne baat ñu ngay def fële bi ma déggee léegi nii dama wax ak ñoom si rek daal di jàpp sama njaboot bëgg leen ba pare sumi seen tubéy bàyyi ko si bàyyi ko si doo ko sumi complètement mm. da ngay kay téye tànk bi kii téye tànk bi ñu watat ko ba gendarmerie daal bépp yàqu nu sànni ko fa dem seen dem ma tànk ba sax am na koo xamante ne ni dëkk bi loolu mën nañ ko fay def ndax lu tax mën ñu ko def pour loi bi ñu wax ni toujours déedéet loo bi da ngay jékki-jékki tëb ko def jéggi ñag bi def leneen duggaat ci biir rang yi lan moo tax ñoom ñuy am xel mu rëy mu toll ni di di di def ay yooyu fii da ngay jaamu sa yàlla ni nga ko xamee da ngay mës nëbbatu continuer nëbbatu fi Sénégal de pour ay franc bien que ku nekk xam na ne franc yi sa franc-maçon yi nga gis ni kenn ku si nekk xam nga sa boppa waaw franc-maçon yii fi nekk ak tey di mbokkaa ngi fii te seeni mbokk dégg nañ bés ñu xase leen ko bu la xasee diw sa mbokk diw kat nanga wa nanga dégg nga war a dem si si si si réunion toog en famille waxante dëgg waaye dañuy toog rek di koy nëbbantooxa naa non franc-maçon yi dañ am doole amuñu benn doole bu ngor lañ jëm mhm. yàlla nekk dëgg man foofu waa Ngor ñooy mesurer xool su fekkente ne jaadu na jaadu na laa wax buñ ko defee si si hôtel ba day déggoon naa fa dañ fay déggee di def yi ne mhm. ba quelques formations yi ma si xam sax fii euh, ñu dëkk Wakam foofu laa ko xamee mhm. dégg nga wax mhm. mais bu dee foofu la te dañ ko daan si place publique foofu si si si si ngor su ko waa ngor mën a ma buñ koy mënee régler bisimilah suñ ko mënul régler ba mu diis nañ def appel ngorax am benn la ngorax yoof benn la ba tëngeej ba fu ne xamloo xamloo foofu lañ jëm si réew mi am na façon yoo xamante ne ku ko def si réew mii nous les lébu ñooy jog taxaw wala ne la kenn du ko defee suñu région mu am itam lu ñu xaw a jaaxal mooy que ni ab waaye dafa taxaw ne jox na rendez-vous en tout cas askanuk Sénégal gi yëpp euh, bu 17 euh, jotee ci jouru tamxarit ne dafay xar géeju sumba jun fàttali ma tur bi sax man xawatuma ko xawma ko sax kunkande kunkande <laughs> waaw loolu maa ngi dégg rek mais man ba léegi ay ree la ma def hmm. ba léegi aussi maa ngi gis ne peut ay ay kii la quoi ngelaju la quoi parce que dégg naa ne vues yi ñuy am si si euh, Facebook bi yooyu si an naka YouTube bi waaw vues yooyu ñuy am euh, am na nombre de vues boo xamante si soo ko amee temps la am na boo xam ne temps la maanaam job la daal comme nag te daf doon liggéey si façon liggéey yooyu bu fekkee moom ci boppam mennam xelam tuuj na xel yëpp ba dem ba àgg foofu man dama yaakaar ne dafa bëgg ay vues man loolu laa yaakaar. xam-xamam dayoom yeggul foofu wala lan la. non dama ko moom xaw ma ko mais xam naa li ne dakaar bu fekkee fi ma dégg la ndooy day du si wax xam nga tax ku xamul foofu balaa ñu fay àgg su ngeen tegee bande bi su ko déggee na en arrière xam nga tax foofu. place boobu ngay gis noonu mu nekk noonu ne ñu ma noonu si booru Soumbédioune foofu mooy pooru Guinée yi dinaa la si jox benn dàkkantal yow soo demee ba si tefes gi xoolal ñi ngay jekkoo Île des Madeleines boo demee ba foofu xoolal ni mu demee ku fa ku fa toog ñaan fa yàlla def fa yéene yaa xam mbaaye ñun day ñun ñii di ay lébu suñu xel sax nekkul su loolu te loolu sax man dama xamul bu xottee xaree géej gi lan la koy jariñ dégg naa boroom xam-xam yi day wax nañ si yoon yontu yàlla noo ak géej ak programme bi xew ak yépp waaye defe naa ne fi mu toll nii yàlla passé na pour diñu jox ay ay ay firnde si yenn yi ndax dégg nga fi ma jëm maanaam yàlla boroom xam-xam yi mu jox xam-xam passé na pour di xaral géej ak dafa leeg dafa lële. Mhm. maa ngi dégg sax benn oustaz xama xamu turam baay xam naa ko ni kanam muy wax ne am na xale yi sax yu bëgg a tukki effectivement loolu bu fekkoonte ne dafa nekkoon feex fii rek mu xalal na ko dina tax goos yi dugg fële daal di fay job tuuti retourné mhm. mais dañu tolluwul foofu gis nga ndakaaru dama ne la man du ma si nekk di wax déeg wa ndéree waaye dama ne su fekkee mën naka rek na dem mhm. foofu ngay gis noonu maa ngi dégg ñu sax Idrissa Ndiaye Idrissa Ndiaye day dem rek pour di ñaan yàlla yàlla faj nit bàyyi ko ñu bàyyi ko wala muy def leneen mais même même Xaadim Mbay benn loolu la fay def mais man ñoom dama leen di demander bu ñu def dara parce que nit ki dafay bëgg a wane boppam ay sa moo boppam di nga xam ndax ndakaaru noonu la waa bu la déet. Euh, lañ am ak foofu. ah ñaar ñoo ñoo fay dem di tuuru di. Mm. dégguloo turu Idrissa Ndiaye. Mm-hmm. dégguloo turu Khadim Mbaye. Mm-hmm. ñoom ñëpp xam naa ne ñu ngi fay tuuru. am na ñeneen ñu ma xam comme ñoom ñoo fësal seen bopp. ma wax la ñoom li ñuy def lan la ñoom ñooñu kenn ku si nekk loo fay def ump ma te koo si wax dina la wax ne umpul jaraaf ndax dégg nga fi ma jëm mais dafa am loo xamante ne suñ koy def pour Sénégal am jàmm pour nit ñi am jàmm man ma si ànd mais bu ma gisee ne ñoom dañuy def lu kii lu dañ koy yàq ñoom ñu ngi may dégg xam na ne mënaluñu ma dara te xam nañ ne jaraaf mii kenn ku si nekk toog na yow te xam nga ma xam bon du lu may nekk fii di waxan euh, mu nekk lu euh, am solo ñu dikk ak yow ci beneen pàcc te mooy que ni bëri nga sax nag loo ci wax waaye yaakaar naa ne àddoogoo ci euh, ci suñu micro mooy rek wàllu mairie Dakar ñu bëri jàpp nañ ne il faut njokk ab lébu ngir mu mën a faj problème yi nga xamante ne ni moom moo fi am mu mel ni yow danga nga jug ne loolu munu fi am am ñu jàpp ne tamit war na mën a ne en tout cas ñu euh, saytu rek ne euh, collectivité Lebu ci boppam dañoo xaw a diviser wu par rapport ak loolu. diviser wu ñu xam nga ñun suñu bopp ñooy fonctionner noonu xam nga ñu bari dañu defe ne dañu réer réerunu noo fi gën Sénégal noo leen gën a yow fuuf Sénégal xam nga ñu bari da ngay dégg sax non lébu yi day comme ay jën. jën leen gën a yow yéen Sénégalais yi xamul daa aw jën mas nga xam ne jën soo ko tegalee mbaal am na nu muy demee boo ko takkee mbaal mi moom si boppam bu ñuy du ëgse xam nga loolu jën di ko tegal jën meeb nga kor si os bi bàyyi mu dem si géej mu war ko lekka bu ñëwee da koy fëggantu ba lekk sa te doo ko doo jàpp kenn mas xam loolu jën day calculer génn dafa am fu mu jógee ak fu mu dugg gis nga ba si coof yi ngeen di wax naan coof nii déedéet coof boo gis mu ñuul si géej fii si Wakaam fii jëm Dakar xam nga lan la coof yi fu dugge toog fii boo gisee coof bu dawee ba Mauritanie bu duggee Dakar day weex fur seetlu leen ko dafa am loo xamante ne foog ñun ñu yeewu si mais tey jii nga ñëw euh, ñu ne dañ lay nakkatul sax euh, no man mënuma comprendre ñu ne mairie bi wax naa si mais lii ma wax non man duma bëgg kenn ku nekk na sentir ne mu ngi Dakar kenn ku nekk sentir ne fii la dëkk même awakam je dis que ku fi am soixante-douze heures fii nga dëkk xam nga ne suma maam defoon bi muy ñaan bi muy bi mu sënkee wakaam ba pare en mille six cent un dafa ñaanaloon gan yi yàlla nañu dugg jàmm yàlla nañu fi ñëw ak jàmm kii wax gan dafa wéet dëgg wala de waaye gan yi ñoo nga bëgg a dégager ñi dégager gan yi pour lan dafa am lu jekkul ñun ay sénégalais lañ ñoo bokk couleur bokk lépp bokki affaire doo ñëw ni tey nga ne euh, ku fi nekkul maire ku nekkul ni non bu doon ni dañ koy dox ci suuf sax di dox seeni affaire ci suuf mais Ablaye Matar Ablaye Matar amul droit di waxee noonu xam nga dama wax am na maam kooki moo fi ñëwoon fii moo waral grand sëriñ ji ngay gis nii kokki Issa Gueye laa la wax ay kokkindu yi ki Issa Gueye bala maam jóge ñëw fii moo Papa Diagne mii <coughs> waa nit ki nag sa maam ñëw ñu teral ko nga ne lébu nga comme maam yi nit ñi way mais nag nga ne non ab lébu moo fi doon maire pour lan am na ay maire yu fi amoon te mag ñaa ngi fi woon te waxuñu loon wax ju ñaaw mm-hmm. dañu toog rek di waxtaan di arranger di seet nu ñuy def mais bu boo dokkontee fan lañ jëm fi xeex lan nga dégg Côte d'Ivoire da nga koy dégg fii te day yomb te nun ay jullit lañ rasulullahi sallallahu alayhi wa ku yewu si ñun moom ngay ñaan yal na la yàlla jàppale sa si ñaanam yal na si jàpp ku nekk nga bëgg a xaritoo moom nga bëgg jël programme limité ko ne non ñii comme dëkkuñu Dakar ma ne fii la ñu nekk boo fi toogee soixante douze heures fii nga dëkk te dak ma wax la Dakar dëkk fi xam nga man lan laa kontaan nii dakaar gën a neexe si région yi maa si bég xam nga lu ma d'accord mm. nañ jël ñëpp yemale rek ku baax daal na ñëw jiite waaye nag fa am yoo xamante ne wax lii ren taxul déwén ma ma may nekk fi di di ma raaba abadan man du ba du ma raaba abadan de mm-hmm. lii ma wax daal yàlla loolu d'accord muy que ñun nañ bokk ndey bokk baay mm-hmm. bi ñuy doog am indépendance maa ngi fi maa daan dégg way yi yéen waa Sénégal bokk leen ndey bokk baay ñu bay suuña bay saaña suuña ak saaña du dugub mm-hmm. buñ ko amee suñu réew neex mm-hmm. parce que ceere ngi fi yeneen nang fi mais tey nga ñëw nga ne noo kii la dëkk kaafaan la dëkk ñun gis nañ mais xam nañ xam nañ lii leen metti aussi ñoom parce que Sénégal fi ngay toog dangay toog à l' national nga war fa toog di défendre sa koñ d' accord défendre sa koñ mais da ngay digg wax joo xamante ne waxu iñaan la waxu ko bon waxu baadoolo xam nga muy lan. Mm-hmm. non Dakar ñëpp a ko bokk Dakar ñu ko ñu bopp bokkee mooy capitale d' mm-hmm. lii fi nekk dañ ko war a defar dañ war a defar région yi. man si sama boppa démb rek maa ngi wax gars yi man leen su ma sañoon senegal Sénégal te ba ma ma ma ma moom sama bopp rek moom affaire bi dama naan budget senegal dañ koy xaaj dugal ko Casamance Sirène def ko ay usine ay kenn xamul boo liggéey ñu beneen jël beneen ruxo su ko defee senegal dina booy ndànk-ndànk mm-hmm. ba mu tàng ndox mi tàng mm-hmm. bu naan kafe jotee naan kafe mm-hmm. mais comme li yi wa non Dakar ñëpp ko bokk ah lan yow nga am sa maam sa maam am ba dëkk bu mu dëkk yow nga dem penna nekk ak ñoom nekk ñoom si jàmm mais boo leen bëggulee boo bëggee diw ba dokkonte noonu lii ma gis si Sénégal nii man pour man d'accord ma loolu moo ma génn nag ma dugg si wax ji parce que nit ki bàyyi kàq dëkk fa te man loo dara man loo ma dara fii laay dëkk. waaye nag kanta di di di di di ñun ñii war a toog di di yaatal bàyyi lay wax ne ubbi leen sàkket yi yokk leen sàkket yi yaatal leen def leen nii def leen ne dégg nga bi tey ñu bëgg a nekk ñun ay xajax muus bu nekkee xajax muus kon kon nañu wóor Côte d'Ivoire gisu leen Côte d'Ivoire retard bi am ni est-ce que ñun dañ war a dugg si loo boobu waruñu man day sentiment boobu laa si gis moo tax may génn sax di si wax di si kërëb kërëb bi bien que gis naa si yu bari nag gis naa fi nga gis ni am na si euh, léegi yëpp ànd nañ ak man mais ñoom ña doon programme affaire bi xam nga lan lañ jokkee léegi nii ku ma tooñ bu ma lee boo gendarmerie ñuy téléphoné xa dem seeti ay nit si tribunal bi ba démb la mujjee démb <laughs> benn waay bu jël parole fii si benn rajo xam nga daf ko en dañ ko enregistré mu yóbbu ko si télé ba wala nit ñi en tout cas mu si biir YouTube bi. Mhm. comme quoi que ni voilà jaraaf Youssou Ndoye ak ñu mu àndal dañ juwul nangam nangam ne ne dañ ma perte plainte woo oh, yaay ba defoon si turu euh, euh, kii jaraaf Omar Gueye Samb bii nga xamante ne huissier bi dem na foofu da wax ne man masuma porte plainte jaraaf Youssou Ndoye te bu ma kenn wax waxu porte plainte kooku xam nga ku baax la. Mhm. yaaram la ku baax la. Mhm. mais ñoom ñi nga xamante ne ñoo moom ñoo bokk santa dañu taxaw tem si ne jaraaf nii jaraaf na le bu jëkkoon dañu may xëy di ma liggéey gis naa yu bëri bëri bëri sëriñ ñëw na fii sax toog fekk gis na xale yi pour ñu indi ko man leen na wax rek lu may doy waaye ko bu mu forcé ñëw maa mu ànd ak sama jarbaat ak beneen waay ñu ñëw fii xam nga lu mu wax jaraaf ñetti at ngi maa ngi lay liggéey jotuma la hmm. loolu loolu nit dina ko wax ni si senegal ma ne ko waa léegi lu mën a def mu ne defaloo ma dara ma ne ko waa léegi yow ku la sant liggéey boobu mu ne ma diw ak diw ak diw te oo ne leen kenn ku si nekk ne maa ngi kër jaraaf yu sundoo am na si ubbi ubbi téléphone bi ñenn yi maa ngi dégg ah waaye yow léegi yow day def ñu toog moom duñ toog ak man maa ngi fii ba àdduna bunta maa àdd rek duñu toog est-ce que loolu réglé na yeer waa ji ma xëy amee ma dama ay doom ma profité si yéen pour que ma expliquer leen wax leen parcelle yii nii ji am na parcelle ñëwaat bi ma réglé grand yi ba leen non boo yi dañ ni di jox ay parcelles indi fi coow mu xam ne léegi ñii d'accord nañ ak jaraaf si lii si la ñëwaat fekk leen ñuy toog di waxtaan waxtaani parcelles yi mu ne leen non gars yi naka yow am nga ba pare mu ne non boobu suma da moom mais maam suma ma juumul daaw ñëw nañu fi wax la même chose problème mu suuf waaw fii moom moo di ram ba tey jii nii waaw nekk loo xamante ne nii ñu ngi la ciy topp xëy na waaw topp dañu dañu waar xam nga soo amee waxoon naa fi Sénégal ne nañu moytu affaire xeexu suuf parce que moom mii indi wax jii sax laa la wax ne la société am na terrain ba ñëwaat ne awatuma moom ma ko sama rakkaa ko moom kon dafa bëgg passer kam ci suuf comme ñi doon xeex moom ci la bokkoon mu jël paaru xeexam te bàyyi li ñu doxoon papam muy ñaar man état bi jox ma ay suuf ma jël suuf soos doon defar man ma uti carte d'identité am yëgul ma utal ko parcelle jox ko parcelle boobu maa ko jaay quarante euh, Ousmane Gueye ak Massaer ñoo ko jaay quarante cinq quarante trois millions si dañ ko tabaxale kër gaa ngi tolloo fii am na benn maman sax ma gis booy ñu bind fa à vendre <laughs> pour wax la ne nit moo lëndëm tey bi ñu àggee fii fan la ñu toll muy wax ne nii la mbaa man ngeen di dugal ñetti parcelle seen kër nga liggéentiwaat ay parcelle pour say xarit yu dëkkul ak day wax ku dëkkul ak moom ci boppam boo bu fekkente ne dafa bëgg na indi télévision ma yóbbu ko si kër yi nga xamante ne ñii ko moom lii lañu te man maa ci xam dara mm-hmm. mais bañ lu yàqu man du fekk ay ay jàmm ma sa dugal ay xam na ñu bëri dañ may dàkkantale jaraaf dafa bëri histoire man damay gis nga nit di la dóor ma mer dugg si mais ku ma tooñ man mën naa la baal parce que xam naa ne soo ma tooñee xam nga ne man boo ma jógee doo si gën mais par exemple yow boo defee loolu ba pare jël ay nit ñu am ay terrain si terrain Wakaam bi nga ñëwaat yow bëgg la dégg daa na ne man damay wax am naa ba pare mais ma wax la golo yi doon day ñoo fii si géeju wakaam gi <laughs> xam nga xam nga démb lu ñu yendoo ba yégée ni sandarma bi defeere nag di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc xam nga bañ toj réew mi mais suma bañ bañuloon toj réew mi damay placer ay nit si buntu tribunal bi xam ne soo duggee nga xam ne wakaam nga dëkk wala diw nga wala na ñoom ñi fa nekkoon njiit yëpp kenn ko si nekk yaa ngay xinte booy bi kii ministre la kii lii la ñu ngay dem di arranger pour que xale bi génn xam naa ne meewal nañ ma fa ndax dégg nga wax bi mais man ñoom maa ñoom xam nga lu ma wax nii bukum peera tabaski viendra mhm. dinaa leen am am na solo Pape <laughs> ah. Boye ci pàcc boobu yaakaar naa ni kàddu yi masale na itam ñu bàyyi rek nga def tàggatoo bu nu tàggatoo ba beneen yoon rek incha allah. kàddu. sa kàddu tàggatoo. waaw di suma kàddu tàggatoo moom mooy que loolu maa ngi koy ñaan yàlla te yàlla xam na ne fa suma ko yéene bàyyi tey muy. ñaanal jeune Sénégal ñu doon ay magi Sénégal yu digne yu normal di ñaan pour que lii nga xamante ne moo fi génn ñu ne richesse la mu jëm si pétrole wala leneen yal nañ ko exploité si jàmm ak salaam seytaane ñu si dugg parce que man su la am loo ne mbokk xam nga lan laay am damay gis ay boy yoo xamante ni dañuy am ay hélico ñii am ay oto yu nice ñii am ay kër kër yu nice sol yére yu nice di romb si réew mu wóor ma ne Sénégal dafa nekk léegi dañoom naan dañ koy tudd bàyyi turu Sénégal bi sax naan sans souci man loolu laa bëgg mu bëgg xale yi am li ñu bëgg maa ngi leen di ñaanal nag parce que bañ naa ko ba wax ne suma ma deewee na ma xale yi rob nañ seet fi ñu ma bëgg a denc ñu denc ma wax naa sama mbokk ne leen bu kenn xëccoo ak xale yi waaye nag bëgg naa pour que ñoom seen bopp ñu am teranga mel ni ñu war a mel réew mi avancé loolu mooy suma baat bu mu jëman ma gis ne aussi nanu seet yàlla seet yonent bi ba lii nga xamante ne alquran moom nañu indi nañ si dox mais ak dal parce que suñ ko doxoolee ak dal lii dal xale bi ñu wax ni tey xale bi dafay liggéey comme ah liggéey musique la ah. bari nag si réew mi yoo xamante ne ma suñu baale waaye sama gaa sama classe gi man ñu kaa wadde gis nañ fi yu ne nag sëriñ bu fi baal ba pare ba matal sa baal dem fale jàng jàpp jàng ñaari saar ñëw tax gëpp bëgg ñu rey xal law xar rasulay lii ngay wax na leer man loolu laa bëgg da nga wax bi ak xale nag dañ koy dox ba mu mat nga nga taxaw mën na ko dox ba mu mat nga bàyyi mais bu boo màggee tamit dafa li nga war xam nga fii dafa am mu fi am jëkk yeewu la rek jëkk yeewu euh, daanaa ko sax si sama yaay sénégalais bu la jëkkee yeewu dana naan sàngal saw taat xamuloo ne aw taata ba nga woon si biti boo toogee ba réussir si àdduna xamal ne am nga foo jaar kenn këyul rek mu neex mais bëgg xeebante buñ ko defee su suñu biir yàlla du kontaan si ñun te yàlla ñàkk kontaan si ñun mooy balaa yi gën a gis nii ay corona yi dina ñàkkul sax dina fi amee morona mais réew yëpp <laughs> nañ ñaan yàlla rek jëlal ñu ko sànneel ñu ko fële te ñu nekk si jàmm jëleen jëf yàlla leen yàlla aar yéen ñi nga xamante ne yéenay filmé yàlla may leen ngeen dund lu ëpp téeméeri at ak ñaar fukk ak ñaar defal ko seen néegi ndey ak néegi baay waaye lii nga xamante ne mooy tam loolu di jàmm Sénégal yàlla defal leen loolu yàlla bu nu xeexante suñu biir barke Mouhamed jërëjëf